Évidemment, j'aurais dû vous dire tout à l'heure que ceci ne correspond pas à la réalité et que je ne sais pas d'où vient cette information. Ce que vous avez entendu dans la presse ce matin, ça ne correspond pas à la réalité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. maa leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di la sargal di la jaajëfal ci ñëw bi di ko dooree ci soxna yi ak góor yi nekk ci presse ñëw taxaw pour déglu ñu di nuyu tamit suñuy xarit suñuy am di jàmm militant et militante ma bëggoon nag ci élection présidentielle de 2019 def une déclaration déclaration bi lii la sama base politique muy base parti bi saytu nañu que nañu seet ci élection yi ñu jëm kan la wara andal. bi ñu waxtaanee dañu ne nous avons appelé le candidat Idriss Sek, nga avons ni président wu coalition IDI 2019 Nous avons na, nag dañ nous avons saytuwaat ko xalaat ko xalaataat ko Nous avons appelé ay candidat Idriss Sek. mu ñëw fii ñu waxtaan lu bare yoon donc tànn bii ñu tànn lu ñu xalaat la noonu la mënoon a demee ci intérêt Sénégal ndax Sénégal moo ñu ñor moo tax ñu jóg jàppale ànd ak askan wi liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ndax kat dañu ne

jigéen ci njariñam ci askan wi jigéen ci dugal loxoom ci askan wi ñu koy wax leadership féminin loo xam ni suñu xol sedd na ci lool ndax kat leadership féminin tey teg ko fa mu war yegg ku ko fa ku ko def rek xam nga intere askan wi te dañuy sawar ci jàppale la nandoki yaakaar tey ci mbirum jigéen ñi ak fa ñu war a yegg dafa am lu nekk lu am solo surtout bi ñu xamee fi ñu jome jóge lan la dañu jóge ci mbirum parrainage mo am ay jigéen ñu déposé woon seeni candidature waaye bi liste bi génne benn jigéen bokk ci kon ba bu ñu ci candidat yi koo xam ne wane na ni leadership féminin am na solo ah day indi yaakaar ci ñun yaakaar nañu ni woote bi candidat Idrissa Seck woote dinañu gis njariñam te njariñ loolu ñu koy gis ca fa mu nar a teg nit ñi nga xam ni

Sénégal de valeur jikko yu baax loolu mooy tabax réew ak askan dañu ne Sénégal bu am koom-koom bu am mën-mën boo xam ne xale yi dootuñu sonn jigéen yi kenn dootuñu sonn Sénégal boo xam ni amul xaj ak seen inclusif ñëpp ci biir ñëpp ñu teg leen fañ leen war a teg am considération te ñoom ku ci nekk dugal sa loxo ndax Sénégal jëm te kanam Sénégal nag bu am doole moom ci boppam ca biir waaye doole ci bitim réew ndax loolu tamit am na solo Sénégal ñu respecté ko loolu laa bëggoon a wax tey di leen jaajëfal wasalaam léegi nag lii dañ ko yeewoo tey lii ñu wax fii nee nañu dama dem Benno Bokk Yaakaar du lu am xaw ma nag fan la jóge information yi fuñ ko taataanee ba bind ko ci quotidien ba revue de presse yi di ko wax ba <laughs> ñëpp di ci waxtaan du lu am du lu am lii amul Voilà, merci beaucoup. bien. voilà ça y est. Dernière Question. une question. Hein? une question. et vous me parlez parce que déclaration là, est.